dajjaal dana ñëw waaye bu ñëwee dëkk bu ne dana ca dugg lu may madina yàlla xaraamal na ko mu dugg madina waaye dana ñëw ba ca tan yi nga xam ne ñoo war madina suufi xorom yooyu bu ne bu boobaay benn waaye boo xam ne moo gën a xiw wala ci ñi gën a xiw ci ñooñ jamonoom la bokk mooy génn medina ñëw gàttandu ko ne ko sedd naa ne yaay dajjaal mi nga xam ne yonent waxoon nañu mbiram mu ne nit ñi waaw su ma reyee kii dekkal ko lu ngeen di wax bon dangeen gëm sama mbir wala déet ñu ne ko boo ko defee ñu gëm la mu rey ko dekkal ko waaye ne ko maa ngi maa ngi lay soo ko xam nag tigi tigi tigi tigi tigi léegi nag wóor na ma ne yaay dajjaal mu dellu fabaat gànnaay bu ko rey nag boobu yoon nag malaat yi dox diggante moom mën a lu ko dara

mu ne naka noonu mbas itam incha allah du dugg Madina